dikkati naa wure wa day dem na këng tribune yéen a kaay ne Idrissa day amati na gan gu yees ci biir coalition présidentielle 2019 yi daal du yomb dara yéen a kaay dee média bi ne ma Bougane Gueye Dany day dem na fekki Idrissa Seck ngir jàppale ko cooy la élection présidentielle mujj nañ def seen foi ñoom waa gëm sa bopp ne ñu yi la élection duñ ci ànd kenn ku dul Idrissa Seck ndaamal Kajoor gaa yu gëm sa bopp ne ñun de fa ñu nekk mësuñu caa jóg dañoo bëggoon yóotu bopp réewum Sénégal ñu rëkkale bi ne candidat ba ñuy suñu programme point yi nga xam ne defoon nañ ko ci téere daal di koy intégré nag ci programme am lii nag Idrissa Seck moo ñu ko nangul moo tax ñu dem allié ak Idrissa Seck ànd ak ñoom waaye nag moom jiital gëm sa bopp ne man day daanaka ku ma àndaloon baax na dama gis ne rek Idrissa Seck jamono ji mooy sama choix bi gën waaye daal objectif bi njëkk bi mooy jëlee fi Macky Sall mii ci palais bi moom na fi jógee rek kuñ fi teg baax na ku gën ci Sénégalais yi daal na fi jógee abal ñu l'observateur ne dee fàq dem ci Idi day Abdoulaye moom gisul kenn candidat yi nag ñëpp boycotté Abdoulaye Wade ci li scrutin bu mu am ci réew mi professeur Issa Sall ne kenn mënta tere nag élection présidentielle yi am ci réewum Sénégal Macky Sall Madické Niang Idrissa Seck ñoom waxtu bi lañ maye les échos yéene kaay ne Abdoulaye Wade de waxuma la candidat yi waaye ña ko jege woon sax bàyyi nañ ko ana Mamadou Diop de Decroix ma nga ca idi Pape Diop ma nga ca idi Mamadou Lamine Diallo ma nga ca idi yanaa maarit nee nañu ànduñu benn yoon ci boobule boycott Sud Quotidien ne Abdoulaye Wade kay dañu ko daal di recalé carrément ci l'élection présidentielle bu ko professeur Issa Sall recadré Ousmane Sonko moom dafa respecté position Abdoulaye Wade Ali Nguy Ndiaye nag sewal xalaatuk Abdoulaye Wade ba mu tuut lool job Mamadou Diop Decroix dem fekk idi boycotté Abdoulaye Wade Idrissa Seck moom defu ci toq commentaire lu dul jël petit gay teg ci wetam Madické Niang moom wéyal campagne am ak pat l'enquête ne nañ ko defee sax moo ñaaw Abdoulaye Wade day ñëpp ko bàyyeeg boykotam critique ne ko dafa mel nag kuy gént moom bàyyi Karim Meïssa Wade Macky Sall nag moom soobu ci sondage yi Vox Populi ne ko bu doonub xeex la de mënees naa wax ni Wade moom dañu koo daal di sotsatoo projet bii mu ngir boykote élection kenn fekkiwu ko ci Le Quotidien Le Quotidien ne dafa bëggoon sabote élection yi de waaye bu doonu parrainage jàppale ne Abdoulaye Wade moom du te jàll Mamadou Diop Decroix ne lii sax dafa mënta nekk ndax élection yi nag moom rek la ni ki ngàndaay ngir jële neex képp koo xam ne nag taxaw nga ni sénégalais bu leen voté ji kooku ab allié àndandoo Macky Sall la Aly Ngouille Ndiaye de ma ne tëdd leen nelaw Abdoulaye Wade mënta tere nag élection am ci réew mi Abdoulaye Wade bu wootee boycott respecté wuñ carte sénégalais carte d'identité ak carte électeur yu leen voté loolu la amul Omar Faye leeral askan wi ci tribune yéene kaay ay junni ak junni ci ay sénégalais ma la ñu ngi toog am âge voté te mënuñoo voté ndax amuñu carte électeur ci ay sénégalais ñoo yor seeni récépissé waaye mënuñoo retirer seeni carte d'identité ñun ñu yor suñuy récépissé dañoo dem ngir jëli suñuy carte ñu xamal ñu ne ba nii suñuy carte yegg foofu léegi nag ñu wax ñu ne ñun ñu yor suñu récépissé ba tey nañ dem wëri certificat de perte dem jëndaat benn timbre bu dix mille francs andiwaat original récépissé bi ngir ñu mën ñu defal duplicata beneen carte mu mel ni daal ñun ñoo réeral suñuy carte d'identité te mu neex ñu lii moo tax may xam leen ni Aly Ngouille Ndiaye ba Sénégal sosoog tey a cuune maa ko wax man leer askan askan wi maître Madické Niang ci vox populi ni ko déet sama bëgg nga xam ne nag régime Macky Sall bi ci boppam moo daal di tuune bi les régime échec sur échec rek Ousmane Sonko ni ko man de bu justice baa ma gën a frappé yoon daal doxul ci mim réew source aané ma ne dina tàng da ci les élections bu dee waxu Abdoulaye Wade yi gëmuñu kaat ñu ko jël au sérieux ñoom nguur gi moo tax Ali Bowër Ndiaye jël na benn motard ak benn auto escorte tañ ci Abdoulaye Wade niki tey tey tere nan bépp ndaje boo xam ne juróomi nit ñoo ko def ci mbedd ndakaaru yi te yemuñ ca de fa ko dooree jam ñaajo ay dispositif ruu lañ fa daal di teg jëmale ko nag rond-point Kër Massar ñu fas fa yéene dëj nag ay gendarme yu nekk Ndakaar ak Thiès ak GMI ak GIGN kon tey dara du yomb lu ci mënti am daal élection yi moo tax a jug lu ni mel réew mi ko du jeenee enjeu bi njëkk ci yéele élection ñaareelu wërngël la l'exclusive ne waxtu ma ngay neexal avocat ne ma ña ngay wan seenu doole ak seen mbëggeel Marième Faye Sall Dakar Times ne ma ne la ñuy xeeb Facebook bi day ak réseaux sociaux yi xamuñu nag gan influence la am ci électeurs yi moo tax candidat yi wax te rewul de teg nañu ay stratégie ngir nag ñaari millions ak téeméeri junni sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ci réseaux sociaux yi rawatina Facebook mën a adhéré ci seenu programme jamono ji nag mën nañ wax ci internet bi candidat yi di Idrissa Seck Macky Sall ak Ousmane Sonko ñoo dominé Facebook boobee yendu leen ak jàmm